abonné leen ci suñu YouTube ngir jot su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak Walf Quotidien xëy di ñu dégtal li nga xamante ne coalition Benno Bokk Yaakaar xalal nañu yoon jiit réew mi euh, Macky Sall ngir mu am tànneef ga muy am jëmale ko ci candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar yéen kaabi di Walf Quotidien am ci taxaw seetlu ñi jege jiit réew Macky Sall doon ay allié ci coalition gi ni mel mooy euh, ci wetu njiit réew Macky Sall lu demee ni euh, parti socialist AFP ak PIT ak yeneen i parti yoo xamante ne bu njiit réew Macky Sall ci bopp réew mi ci élection présidentielle yu 2012 ba tey ñun puusuñu paasuñu ñu ngi wéy euh, di doon ay jegeñaale ñaale réew Macky Sall ci coalition Benno léegu yooyu le alliés ci euh, fu jamono toll rawatina élection présidentielle yu 2024 yéen kaabi di réew mi quotidien xëy di ñu dégtal tànneef gi njiit réew Macky Sall kañ lay tànn euh, ci élection présidentielle yu 2024 ci jamono ji coalition Benno Bokk Yaakaar ban nañu lépp ak njiit réew mi Macky Sall ngir mu xool kamuy jiital yéen kaabi di critique ne am na ñuy lamlame Amadou Ba ndax dina doon euh, moom ci candidat benno am déet yenn cabinet njiit réew Macky Sall ci jamono ji am na carte euh, blanche goo xamante ne waa benno ñoo ko ko jox ngir mu mun a am tànneef yéen yenn di l'observateur ne kamuy tànn euh, bokk na ci kay doon candidat bu coalition benno bokk yaakaar njiit réew mi Macky Sall fa mu nara a sukkandiku na doon koo xamante ne ndaw ñi dañ ci am yaakaar ci moom na doon koo xamante ne itamit deram rafet na lool ci réseaux sociaux yi na doon ko ànd ak xam-xam ku jege wàcce lu bëree bëri yéen kaab bi moo ñu ko yëggee moom l'observateur yéen kaab bi du Sud Quotidien am taxaw seetlu ci APR ci jamono ji dal amagum na ci parti njiit réew Macky Sall laata ñool ñool euh, di ci euh, tukkee ëllëg ku yabo sentu euh, ñaxtu ci parti APR saay bu njiit réew Macky Sall tànnee candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar yéen kaab bi du Sud Quotidien xëy ñu ko leeralal direct news am jaaxle lool ci tekk tekkaaral ñaar ñile bokk na ci député Farba mi àddogul ci li sooke njiitu réew Macky Sall deltu ginnaaw ci candidature am ba ci Abdoulatif Coulibaly eh, say bu mbir mosaana xew daawoon nañu addu waaye nag bi la yoon eh, kenn déggagu leen ñu wax jëmee ci eh, ñàkk doon candidat bu njiitu réew mi Macky Sall yéen a kii abi di bés bi la journée besu fukki fan ak juróom ci weeru sulet gi ñu ne ca la ñu joxante dig daje waa fi ngir jëmmal seen candidature samp seen ndënd maanaam samp Ousmane Sonko mu doon seen candidat ci élection présidentielle yu 2024 investiture googule eh, kii di El Hadji Malick eh, Ndiaye bu Pastef xam le ne Ousmane Sonko dina ca teew eh, bés jour am ci taxaw seetlu gis ne Ousmane Sonko candidature am ci jamono ci mu ngi gën di taq suuf mu ngi ci yéen a bi di bés bi le yéen a bi di le mandat gis ne ëllëgu Ousmane Sonko ci wàllu politique rawatina élection présidentielle yu 2024 tàmbale naa lëndam lool maanaam Ousmane Sonko candidature am wóoragul ci élection présidentielle yu 2024 kenn ci jege ñaale Ousmane. Ousmane Sonko euh, di euh, koo xamante ne responsable Pastef la ñu teg ko loxo euh, ci diru ko ñetti weer ma nga woon dungu siin laata muy génn kaso ñu takkal ko lam yéen cabinet waa jooje mu ngi dund jafe-jafe yu métte métti entreprise la amoon société d'assurance waaye nag ci jamono ji amatul koppar goo xamante ne mun na ca sukkandiku ngir doxal koomam la mu jota dund ca kaso ba mu ngi koy nettali ci biir yéen kaabi di source a yéen kaabi di turbine xëy teeri ji ca waaxu Kafountine foofee ñetti gaal yàggut euh, jóge nañ fi wutali il Canari yéen cabinet lu jege ñetti téeméeri sénégalais yoo xamante ne booba léegi kenn gisatu leen réer nañu mër ci géej gi euh, teer seetuñu Kafountine yeggaguñu ci il Canari euh, jaaxle am ci ñi nga xamante ne ay doomu Sénégal lañu yéen cabinet ñàkkum koomu Sénégal moo tax ñu wutali bitim réew ngir mun fa amee koom waaye nag ci jamono ji seen bakkan a ngi ci xottu gerte ndax kenn xamagul fa ñu féete ci biir géej gi yéen cabinet di le peuple quotidien xëy waxtaan ak général taxawal mu ngi ñuy dégtal wàllu kaaraange ak matuwaay ak coppite yu bees ya ñu ne bëgg nañ ko indi ngir wattu kaaraange askan wi ak seen moomel ndax jamono moo ni bindoo ba tax na faw ñu soppi euh, doxalin jëm ci saytu karange askan wi yéen a bi di Le xëy di ñu saytul euh, bakaloria bi ne li ci tukkeegum euh, dalagum na xel ci au niveau national bokk na ci lise yu bari yoo xamante ne jot nañ fa amal lijaasa baccalauréat jongante bi am ñu ci amagum lijaasa googee ci xaaj bu njëkk bi yéene cabinet eh, génn na ceeg ndam élève bi di Yacine Fall ca lycée bu ndand la doon jànge yéene cabinet mooy élève bi gën a ràññeeku ci baccalauréat ren ji ndax am na moyenne gu toll ci 17 virgule 96 pour cent yéene cabinet eh, kàngam la ci wàllu njàng moom yasin Fall ci fàttali moo doonoon élève bi gënoon a ràññeeku ci wàllu BFM ci atum 2020 yéene cabinet ñuy dégtal Yacine Fall ne élève la goo xamante ne amul téléphone euh, daanaka euh, kenn du ko seen ci réseau sociaux yi njàng rek moo ko ñor moom Yacine Fall yéen kaabi di stade xëy di ñu dégtal match xarito gi war a dox ci diggante Sénégal ak Algérie fukki fan ak ñaar ci weeru septembre lay doon ca stade maître Abdoulaye Wade ba ne ca Diamniadio yéen kaabi ne match revanche lay doon ndax Algérie duma woon na Sénégal ci atum 2019 bi la yoon Sénégal bëgg naa feyu Sadio Mané ak ay ñooñam ne jël nañu matuwaay ya ca war ngir fexe ba euh, daan Algérie fii ci euh, Sénégal yéen kaabi ne match bu rëy la ndax match la goo xamante ne euh, la Sénégal di waajalee boppam nattaat boppam laata ñu dem ci euh, Coupe d'Afrique des Nations 2024 euh, ca. Euh, abonné leen si suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar ci réew mi ak ci bitim réew.